أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجب له إلى يوم القيامة الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم alhamdulillahi ala nicmati lislaam wa kafa summa salaatu wa salaamuhu ala ashrafi alaalamin sayidi alawalina walaaxirin nabiyu rahma alladi arsalahu allahu rahmatan lilaalamin sayidina wa xabibina wa maulana muhammad sallallahu alayhi wa sallam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 ziyaar leen ndokkeel leen ci aljuma ji ñaan sunu boroom yal na yàlla defal ñu juma mubarak yàlla mi am jàmm am yërmande am barke ñoo ngi ko koy dagaan yàlla nañu ko yàlla bokk defal adduna defal nu ko àllaaxira ci barke rasulullahi xëy nanu yàlla nanu am kenn lu jàmm del siwaat ci jilsatu nabi ni ngeen ko miinee suba su nga xam ni maa ngi doon joxe ndénkaanu maam Ibrahima alayhi salaatu wasalaam yi nga xam ni moom la ko yàlla joxoon munu koy dénk di juróom-ñaari mbir yu am solo ci téere Ibrahima ya yàlla waxoon ko ni bàyyiloo ko xel jaam ñi mbokk yi maa ngi tëje woon ci juróom-ñaareel bi nga xam ni sunu boroom ma ngi doon wax ak Ibrahima naan ko waxal ak jaam ñi ne leen ku d'accord gërëm nangu ni yàlla doxale ci wàllu wërsëg nee na yëg ni yëgal ni neel kooku moo jubag boroomam kooku mu dëgëral digganteem ak boroomam kooku moo xam kane boroomam mbokk yi maag yéen ci waxtaan woowu lañ nekkoon ma wax ni sunu boroom waxoon nañu ne maa ngi leen di laaj kan moo leen di wërsëgal ak kan mooy wëlbati mbir yi di ko sippir ñi di ko wëlbati di ko doxal nim koy doxalee mooy waman yu dabbirul am amra mbokk yooyu yëpp ne woon na yonent bi ci sóoratu yunus boo leen laajee yi yëpp ma laajte fa sa yaquluuna lillah buñ la waxeek buñ la waxul fii yàlla moo mbokk Ibrahima jàngal nañu ay ndénkaan yu am solo maa ngi ñaan ndénkaan yooyu yal na nu jëriñ waaye tey damay départ ànd ak yéen ci aljuma ji ñu nam seete alquranul karim waxtaanu semaine yii dellu ci alquran ñu daw maag yéen yër benn saar ñu koy wax suuratu furqaan waaye ca geenu saar wa sunu borom daf ci jàngale ana ñan ñooy ay jaamam mbokk yi yéen ñi janoog man kenn ku ne ragal naa ni bëgg ngaa doon jaamu yàlla kenn ku ne foog naa ni loolu ngay wër pour yàlla reconnaître nga doon ab jaamam mbokk yi yonent Yàlla Muhammad de sallallahu alayhi wa sallam biñ ko laajee alquranul karim wan saar moo la ci dàqal mbaa ban aaya daf ne saar wi ma daqal aay bi ma gën a neex la ubbee ñu ne ko wan saar la mu ne suuratu Isra parce que sunu borom ci la reconnaître ne man jaamam laa muy subhaanallazi asra bi abdihi mbokk yi nit lépp lu mu dagaan ak lu muy wër ci àdduna te limuy wër tombewul ak yàlla nangu ak jaamoom yàlla def ko jaamam na yëg ni loolu muy wër du dara perte te mbokk yi ku dem bàmmeel amul dara lu la fay jëriñ lu dul yàlla nangu woon doon sa buur nga nangu woon doon jaamam te yàlla reconnaître moo tax sunu borom sax wax na ni ku ñëw fi yowmal qiyaam dara du fi jëriñ lu dul nga doon sama jaam ma nangu ko illa aati rahmana abdan mbokk yi gis ngeen nitu yàlla yi ma joxe ko mel ni Cheikhul Xaaji Malik bi muy wër yàlla di wër yàlla di war yàlla ba mel ni kuy am si yàlla bi ko yàlla ne yow la kan ci téeréem boobu mu tuddee wasilatul munaadi taysiir dégg leen tontu Maodo yi abdun dalilun faqirun xaashiun wajulun mbokk yi lu ñuy dégg ci wax ci ban baat la ubbee ban baat la ubbee mooy man la sa jaam mbokk yi xatta rasulullahi loolu mooy ndamam yonent yàlla isa loolu mooy ndamam zakariya loolu mooy ndamam ibrahima bi ma doon waxtaane semaine yi loolu mooy ndamam moussa alayhi salaatu wasalaam loolu mooy ndamam mbokk yi mag ñi loolooy seen ndam mooy doon jaamu yàlla wu yàlla reconnaître seenug jaam mbokk yi nañu dem nag ca saar wa ci suuratu furqaan ca geen wa sunu borom def nañu ñi ma reconnaître seenu jaam dakkoon ni ñu ñooy sama jaam ñooñu la cité foofu daldi tuddee aaya bi bi muy ubbi mu ne wa ibaadu rahman mbokk yi lan mooy ibaadu rahman baat lu muy tekki mooy jaam mu aji bari yërmande gi jaamu aji bëri yërmande gi rahman mooy yàlla ibaadu mooy firi jaam nga ne ibaadu rahman jaamu aji bari yërmande gi mboolem ku janoog man loolu nga bëgg a doon jaamu aji bëri yërmande gi loolu la baat bay tekki mbokk yi sunu borom nag ci suuratu furqaan daf ne wa ibaadu rahman sama jaam ñi nga ni nangu naa li ñuy jaamu d'accord naa ni ñu mel accepté naa leen te bu nu ñëwee yomal qiyaam danaa woon ñëpp ne ñi ñooy samay jaam <laughs> ay mbokk yal yàlla ci bokk waaye waaye ngalla maa ngi ñaan jikko yi yàllay bëgg a cité bu ñu ci amul woon yal nañ ko am balaa may daaneel émission yi nga xam ni ci laa nar a waxtaane jikkoy ibaadu rahmaan mbokk yi joxoñ naa sa joxoñ naa saar wi de suratu furqaan la ne dem leen ngeen ko sunu borom ca geen ga mu waxtaanee ñu yen jikko la nit di amee pour ma d'accord ni yow bokku nga ci biir ibaadu rahman mooy bokku nga ci biir jaam yi yàlla reconnaître seenug jaam moo tax euh, dama bëgg ñu déglu ma Haj Mor ci biir li may bëgg a jàngale euh, ndax yàlla nañ ma déglu bu baax ndax dina ci tudd solo moo tax kenn du ko xamee ci solu nit aay ba keroog muy daanu maa ko joxoñ surtout furqaan la dem leen ngeen xool duñ ci gis yàlla wone nu nit di solo pour wane ne sama jaam nga sol koppati nii maanaam ñu naan bone face beeg bone kaare bi ak euh, ki yëre baylaat bi non yooyu taxul nga doon ibaadu rahmaan sol yëre bu gàtt nii ak bu gudd taxul nga doon ko nañu déglu sunu borom bu baax mbokk yi ngeen topp ma mag yéen ci fan yi ñu jàng kan la yàlla nangu ne ab jaamam la bu mu reconnaître njaamoom ba tax mu tuddee ko ibaadu rahmaan mbokk yi lii la alxaaji Malik doon rayante mbokk yi maam Serigne Touba lii la doon rayante pour bokk ci mbokk yi lii la seex na seex saat boog bu kunta Ñas ci lii la ñu rayante woon ba bokk ci ibaadu mbokk yi ñun ñëpp ci lii la ñu war a rayante ci jukko yi yàlla yi bëgg a tudd ci suuratu kaan ba bokk ci biir cadre ñi yàlla reconnaître seenug jaamu moo tax damay bañ ñu defee ni benn parti la damay bañ ñu defee ni benn mbooloo la damay bañ ñu defee ni carte de membre moo ciy dugal nit <laughs> Moussa du yooyu billaay ku defee ni da ngay jënd carte membre bokk nga ci da ngay nax sa bopp carte de membre boolewul nit ci dara xam nga nag senegal euh, da ngay gis ñu ay jëwrin bi wala président daayira mooy carte membre yi ku jëndul bokkoo da ngay wax rek mën naa bën a jënd carte de membre gën la doon daay ak wala gën la doon murit waaye Moussa dañ waxante dëgg mën naa bën jënd carte de membre gën la doon tiijan bon ay carte de membre day wane ak tiijan carte de membre day wane ak murit carte de membre day wane ak ibaadu wala mu wane ak laayeen ak am yooyu wanewu ko fa am lu ñuy loo xam ni mooy daje pour nit doon ku am yàlla ku yàlla reconnaître li muy jëf te mbokk yi ku yàlla reconnaître li ngay jëf rek yëgal ni yow yaay ibaadu rahman bi yàlla tudd ci alquran moo tax cheikhul xaaji malik mi yàlla reconnaître woon ay jëfam ndax niñ ko gisee mu koy doxalee maam Serigne Touba mi yàlla reconnaître woon ay jëfam ndax niñ ko gisee mu ko doon doxalee cheikh na cheikh Saad boog ñu mel ni ñoom maam Ibrahima Niass ak kazalika mag ñu baax ñi ñooñu ñooy ñi yàlla reconnaître seenu jaamu ndax niñ doon doxale ñooñu la yàlla cité ibaadu rahman mooy ñan mbokk yi toppal aaya bi ban la yàlla njëkk a cité alladina yamchuuna alal ardi hawnan ah Moussa première première jikko bi yàlla cité nii ci lay reconnaître jaamu yàlla nit d'accord ko ba bañ ko def sama jaam ñu ne ban la mu ne mooy du wone boppam <laughs> allahu akbar maanaam doo ko gis mukk mukk mukk ci moom ak wonew <sighs> mbokk yi euh, balaa yàlla du reconnaître li ñuy def faw ñu doon ay nit ñu wàcc mooy Moussa li ñuy tuddee modeste faw nu def ko ñun dañoo rëy ah neexu la nag neexu la wax mais danoo rëy dañoo rëy ci jëf danoo rëy ci sunuy wax danoo rëy ci sunuy doxalin dañoo rëy ci sunu dund ñun dañuy rëy ba rëy ci kanam yàlla dañuy rëy rëy rëy ba rëy ci kanamu yàlla sax am na ko bu julli jotoon sax amul sujaada du julli ci suuf wax naa dëgg de xam nga lii mooy rëy ci kanamu yàlla parce que ngir laan mën naa am jeesneer mu sol moo tax subhanallah allahu akbar maanaam nit day rëy ci kanamu yàlla tutu ko yëg de xam nga man boo rëyoon sax ci ñun sax mu tane mais nit day rëy day ba dem ci kanamu yàlla di ci kanamu yàlla di ko wan ne man borom daraja laa allahu akbar te mbokk yi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla da ko ne nabi wàcceel sa bopp ci nit ñi wàcceel sa bopp <laughs> wàcceel sa bopp la ko wax wax fit liman ittabaaka min al muminin ci suratu shuara su ma juumul mbokk yi dem leen ngeen déglu sunu borom ni mu waxeek sayyiduna muhammad Moussa lii war na tiital kuy kilifa lii monsieur le président daf ko war a jëf lii xalifa général daf ko war a jëf lii porte parole kër gi da ko war a jëf lii directeur société bi da ko war a jëf lii baay ci kër da koo war a jëf lii chef de da koo war a def lii musale maire na yëg ni lee ko war mbokk yi grand frère bi ne ci kër gi lee ko war mbokk yi ku ne sunu boroom nee na Seyduna Muhammad wàcceel sa bopp ci nit ñi nga xam ni ñoo lay wut si ànd ak yow ok nekk directeur société daa jër ngay ñëw ci biir société bi maanaam euh, maanaam Moussa est-ce que jar na gars yi gardien yi di dóor nit ñi ma maanaam maanaam non jar jaru ko wàccel sa bopp mais jiital ay nit ñu am doole ñu ñëw jiitu si di dóor nit ñi ah pousse leen di sa waay dal mbokk yi kii ñuy dóorloo nit ñi kii tax ñuy dóor day dee ñu sangu ko dem yóbbu ko ci suuf si suul ko mbokk yi nañu wàcc ku wàccu ren di nga wàcc déwén de billahi Moussa wana di nga wàcc déwén wàcc leen kenn rek war a nekk ci kaw kookoy sunu borom hatta rasulullahi mi ci kaw gis nga li ko wax da ko ne ci mën nga jóge yow leer gu bàyyi ko ci man nga waaye maa ngi lay conseil segam yaa ngi ci biir nit ñi xamul ma lay wax wàccal sa bopp wax fit janaaxak mbokk yi ku nekk ci biir ni ñi wàcc sa bopp yaay sëriñ bi <laughs> wala yaay monsieur le ministre wala yaay xalifa maanaam yaay na mais daa tax nga naaw foo naaw jëm mu tax première jikko bi ñu war a installé ci suñu biir ñun ñëpp mooy mbokk yi ñu bañ a wane suñu bopp nu wàcce sunu bopp kenn bañ a wone ni nga toll ku bëgg yàlla reconnaître say jaamu yaral sa xol yaral sa xel ci loolu rasulullahi nee na nit bu lu toqulu ndaw lu rëy bu newee ci xolam du dem aljanna laa yadxulu jannata man kaana fi qalbihi misqaala darratin min alkibri mbokk yi wa ibaadu rahman alladina yamshuuna ala al ardi hawnan mbokk yi aaya woowu lay door maa ngi ci première bi euh, maa ngi ñaan yàlla defal ñu fekkenu jàmm bu nu del siwaatee maag yéen danaa andi benn texte boo xam ne sunu boroom ci alquran la nu ko jàngale won ñu ñi nga xam ne jox na leen cër kilifteef mais ni ñu doxalee ci seen kilifteef ba tax yàlla cité leen wone ko wone jikko ñu am ni mu noble ba yàlla defoon ñu doon ñu war doon ay référence ci ñun ba mu andi xissa wi nettali ko ci biir alquranul karim ba képp kuy kilifa mën am mbaa nga jiite mbaa nga doon magu kër mbaa nga doon mbaa nga doon loo xam ne yaa ko yor nit ñi topp la mën na am sunu jàngatee xissa bi ci semaine bii di ñëw Moussa mën na am lu mu ñu jëriñ ñun ñëpp ñu nekk kenn ku ne jàpp ne li ma yilif mbaa li ma ci tane mbaa ñi ma tane waruma leen a jaay affaire dama war a wàcc ànd ak ñoom loolu maak yéen incha allahu rabi mbokk yi bu ñu dajawaatee lay doon altine maa ngi teg baaraam ndax waxtu wi dab na ma gërëmaat ñëpp santaat ñëpp ñaan sunu borom yal na yàlla def ñu dégg-dégg jullit mbokk yi euh, damay ñaan sama borom sunu label daal yàlla yëkkatil ñu ko rawatina émission Jilsatu Nabi mboolem ñi nga xam ne dañ ciy janoog ñun maa ngi leen di ñaanal yàlla yal na yàlla taxawu leen waaye maa ngi sàkku ñëpp ñaanal sunu directeur yàlla dolli suuturaam dolli ko wér dolli waaye ñaanal personnel bi nga xam ni ñoo ne ci wetam ànd ak moom ci liggéey bi di ko jàppale yal na yàlla taxaw seeni mbir ma jël nuyoo yeeg ziyaare teg ko ci loxol soxna Ayda mu yóbbaale ma ñëpp géew borom xam-xam yi yal na yàlla may leen ñuy wéralante te bañ di wérante gërëm nuyu ziyaara alxaaji Idrissa Diop rahmatullah alayhi tafsir Oustaz Oumar Diop mu yóbbaaleel ma ñëpp géew mbokk yi maag yéen dañuy dajewaat ci ji sirna bi zaaratum salamatal abdi fattabiu muhammadan wa rihayatul ummi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجب له